te waxuma leen dara ci suma diggante ak Idrissa Seck mosu leen dégg mukk ma wax lu ñu jëm parce que dama tey dama tey fokk ma tey mbir mi ni mu demee dafa simple ci sama pouvoir sama mbëggeel ma ko mu jang ma feetool njàngam ñëw mo and ak man ci bir politique bi liggéey liggéey na ma yëkëti ko def ko premier ministre dox ko pouvoir bi ci gouvernement bi loolu xana ñuma koy defé ak Macky Sall

sama xaalis nga fële demal nga jël ci deux mille francs dem jëndal yi ma nangam ak nangam nga ñëw ne ma man kat dix francs laa jël danaa la laaj huit mille francs yi foo ko dugal naa ni dañuy dem at mu nekk feet bi bu ñu defee Dakar bi ci topp ñu def ko ci capital yi pour mën a indi xaalis ci capital yi profiter defaraat defaraat capital yi defar ren ma ne nañu commencé Thiès ñu ne ma ñaata ma woo ko moom ak ministre des finances ma ne ko ñaar fukki milliards may naa leen ngeen dépensé ko ci kaw bu mu nekk loo xam ne xaalis bu ngeen di lepp la na nga ko génne ci budget bi nga xam ne suñu xaalis la lii laa leen da ngeen ko déglu bu baax de ci gannaaw gi nee na ñaar fukki milliards yooyu dellu suwaatoon na ci man ni ma ko yokkal ba ci vingt cinq milliards mën ko batay. Batay ba tey wàññiwul dara à la condition que vingt milliards yi ñu xam rek lan lañ ci def xaalis nag kenn mënu koo jox nit ba pare te doo rendre compte nangam nangam nangam laa ci def jeex na

loolu di benn problème ñaareelu problème bi Idrissa Seck ni dépensé na ñeent fukki milliards ak juróom benn man ma ne ñaar fukki milliards mu ne ñaar fukki milliards ak juróom la mais affaire bi ba muy jeex ñu ne ñeent fukki milliards ak juróom benn ma ne ko léegi nag ñeent fukki milliards ak juróom benn yi man mënuma koo passer sous compte profit et perte dama am responsabilité léegi da nga wax fu mu dugg boo ñëwee ni def naa tali fii def naa goudron fii def naa nangama nangama bu ñu ko calculer ba xam ne loolu daj na jàmm na ñooy loolu moo tax ci biir conseil des ministres laa ko wax ni ko dangaa jàpp yoon wi nga xam ni man moom laa la waxoon dama la noon bul dépensé ñaar fukki milliards nga ñëw ni ma dépensé ko ñeent fukki milliards ak juróom-benn li mooy mbir mi ma jox ko inspection générale d'État def nañu enquête bi ba mu jeex dossier bi jox naa ko ministre la justice

jeexal naa ci Cees a ngi travaux yaa nga fa mën na noo def calcul jeexal na en tant que président de la République Ce sont des milliers et des milliers de Halpoulars qui ont pris d'assaut le stade Amadou Barry de Guédiouaï pour ce méga meeting dont l'objectif est de remercier le président de la République. Les ressortissants de Podor, de la région de Matam, tout comme ceux